taxawu leen ba di leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla bu ci dara sikk barakat Cheikhul Khadim di nuyu jëwriñ ñi mbooloo mi di nuyu itam borom kër gi di ñaan it suñu borom gàttandu ko ba liñ ko bàyyee mu di ko sàmm yàlla na ko yóbbu fu kawe njot fu mag ñi doon xalaat barakat Cheikhul Khadim di nuyu mboolem jëwriñu mboolem yëpp fuñ fi mën a jógee ñu ngi nuyu ñëpp di leen bu baax di jëkkante ak waxtu yi di yëkkati sunu kàddu muy kàddu fàttalente rek fàttali nag dana baax dana am njariñ trop ndax mag ñi ñoo cay fàttalikoo waaye gone yi dañ ciy jàng te képp koo xamante ni ni amoon nga ca ñooñ démb li may wax am nga ci wàll ndax ñooñ démb noonu la yàlla dogal mu dëkkee seenu gent yor seen deret di dund ci seen barke di puukariwu ci seenu coono ak seenu liggéey ñooñu nag su fekkee ngoro ngi fi bu nu wéetee war nañ leen a ñaanal bu nu wéttali ko war nañ leen a waxtaane teraanga buñ la ko lebalee te sa loxo mënu ko fay saw làmmiñ waru ca jóg te mag ñi lebal nañ lu teraanga joo xamante ni nii mënuñu leen koo fay ndax lépp noonu ñun doonuñu ci dara te mooy toujours li may wax ni buntu kër boo fi dem dal ya bari fa kañ yi boo xante yoonam nekku ci la mu yor ngóoram mayu ko ko te ak yaw fusam du ko xañ ña ko lëggéen ci armée li tëdd ñooñu ku leen fàtte su fekkee ne nga am nga ngor sa ngor des na wala boo xamoo luy ngor loolu moo tax jataay yu mel nii suñu ci toogee ñu fàttalante boo ko defee ñun ñëpp danañ maase yëg ni fii yëf yi agsi doonuñu ci dara waaye war nañoo am jomi sàmm ko nag ba ñeneen ñii ñëw ci suñ kanam jariñoo ndax sëñ Moussa daa wax ne fa lu baax ne ku baax ko fa yóbbu waaye ba fa saxee nag ab defarkat a fa nekk te as gor ab nawlem du defar muy yàq te mag ñi nag ak dara ji duñ mën a am suñuy nawle rek lañ su fekkee yëg nañu ko suñ ko yëgul nag lépp dana yàqu ndax dara du baax mooy dañuy toog di leen yéem rek mais waruñu leen yéem dañoo war a jàpp ne suñuy nawle lañ effort bañ def ba dam fi dara effort boobu lañu war a def ba mën koo sàmm mag ñi dañuy wax ni boo kër këri ba am junni coono ba nga daj ngir am junni da nga naat ñaari coono yu ñu toll ngir sàmm junni boobu mbaa mu dem kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax tey nag di bis bu am solo boo xam ne la ca xewoon deetu xewaat ci yoonu murid yeneen xew-xew yu mel ni moom nag mën naa am ñu di ko méngale ngir ñi fekk xew-xew yooyu mën a am taxawaay yu méngoo ak taxawaay yooyu ñooñu taxawoon ci mbir yooyu waaye tàmbali liggéey jumaay Tuubaa moom deetu am ci àdduna àdduna sii moom deetu loolu jeex na la ci suñu borom diggee woon ñam ko jox la ko jox waaye nag yeneen ni liggéey ngi fi yoo xamante ne ni nun war na nañoo yëg ni war nañ ci am taxawaay bu toll ni mag ñi taxawaay boobee ñu taxawoon ci yitte joojee danaa ci tudd benn rek bala ma ko fàtte muy université bi Sëñ Muntaxa tudd ku ko wóotale ak liggéeyu jumaa ji xamul Sëñ Tuubaa ka ko digle woon ba mu koy digle mooy Sëñ Tuubaa te moo mag ci njaboot gi tey jii kii ko digle mooy Sëñ Tuubaa te moo mag ci njaboot gi ku wóotale ñaari kàddu rek xamoo sëñ bi te ci yittee sëñ bi la bokk yoo xamante ni bokkoon na ci ay naalam kon noonu wax na noo yëg ni am na responsabilité bu gàccu ci suñu wagg bu nu war a taxawe su ko defee nag Cheikh Mouhamadul Moustapha waxtaane ko day neex lool ci ab xol waaye da ngay koy boole waxtaan wi li muy neex neex kersa gi ci biir da ko ëpp doole ndax day ndaw keet def fi loo xamante ne nii ba mu fi jógee ak léegi keneen fekkatu ko ci te ci jom rek la ko teg teg ko woon ci ak wilaaya pas-pas bu dëgër ci la teg noonu lu bari ci ñun ci biir jataay bi noo ko mag fopp ba suñuy bàyyi di laxasu di ànd moom it noo mag suñuy bàyyi te noonu fi mu doon ni nun ñëpp kenn defu ko ci dara bari na ñoo xam ne tey bu ñu doon tëri bu leen ne seen kër bàyyi moom bu leen fa jëm danañ fanaan biti bu ñu leen fotul fi mu nii bu ñu jógoon di ñibbi ñu déclaré ne gars yi nee nañ seen seen kër bàyyi bu leen fa jëm bari na ci ñoo xam bu ñu leen fottu dañu fanaan bitti te doon ñun dong la borom bi bi nga ci seen yu mag a mag kon am na lu des moom nag yàlla daa dogal mu mag ci njabootuk sëñ bi toll ci ñeent fukki at woto ponkal moo xamantene ni aduna musta indi ponkal mo ni tollu aduna musu ñoo wan ku mel ni sëñ Tuubaa amut it kuñ koy tëkkale sëñ tuwa doo jàng mukk aswaram naan moog diw a bokk wala nangam ak nangam diw ca barab sangam di ko méngaleeg moom xostu xayaatan laa tura li xayri mujisatan baanat li usni xayri moo waxal boppam ni dund naa dund goo du ngeen ko gis ci kanam moo tax ba adduna ni danaa fi indiwaat ku mel ni Sëñ Tuubaa saxdu ab yi dañu ko fen nga xalifa samanu la yaatiyan na bi mislihi kazabat yaminu ko yaa samanu fa kafiri mu ni adduna géñoon na ni danaa fi indi ku mel ni Sëñ Tuubaa Cheikh Saadu ab yi ni ko fen nga te na nga kafaara sa fen wi doo fi indiwaat ku ni mel jant du tiimaat ku mel ni Sëñ Tuubaa du amaat mu bàyyi fi nag lu toll ci ñeent fukki bàyyi fi liggéey bu rëy boo xamante ne ñi xam sëñ bi te doon waxtu ndoom xamoon nañ jumaay Tuubaa yitte mu yitte ju rëy rëy la newoon ci moom bëgg-bëgg bu foor la itam ci moom moo tax ci ak mujjëm la woote ci 1926 ca mois de décembre la woote ca kër ga kees goog yi ñuy jàngi fulk bi foofa la woote woo maam Cerno Birahim ndax boobu mooy kilifa ak njaboot gi mooy bras droit sëñ bi mooy ki ko gënoon a jage ci décision yi muy jël dañ daan wax lu sëñ Tuubaa wax te Cerno dikkut loolu wéyagul bu Cerno dikkee mën naa tebbi moom la woolu woo sëñ Moussa ci ay waxtaanam la bokk mënoon na lu bari ci sëñ bi woo sëñ Balla Coro moo doon chef de village bu Njaari woo maam Cheikh Anta moom ab xejj la woon bu xejj ci sëñ bi nag ñeent ñooñu la sëñ bi woo xamal leen ni leen sama yitte fi mu toll mooy kaabatullaahi fii Touba loolu la sëñ bi doon wax ginnaaw ba mu leen teralee ci ay bernde ba pare wax leen ni leen ni ndigal la lu jóge ci suñu borom tabaraka wa jaar ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci man ma sant leen xamal leen nag ni leen du loo mën a ñàkk te bëgg naa ngeen jublu ci ñu dégg loola génn ba ñu génnee ñëw ci keppaaru jumaay njariñ bi ci buntu sowu ba ñu taxaw jàkkaarloo kër gi ñoom ñëpp maam Cheikh Anta ne leen dégg ngeen li sëñ bi wax ñu ni waaw mu ne ak jafe ndax jumaa jooj yi muy wax ca Touba ci ni ko misaale dayoo bi buñ ko seetee dana ñett te jumaay njariñ ji te jii kat 1918 la ko santaane woon ba 26 am na ci liggéey yi loo xamante ni noppeegul kenn ku ci nekk la nga mën ak la nga mënul lépp boole ko def ko ci li bëgg kat jafe foofa lañ leen fekkat ni leen kay leen wuyu serigne bi sëñ kale sey leen fekkat ni leen sëñ bi neena ngeen delsi ñu ànduwaat delsi sëñ bi ni leen waaw kay ma leen wol won dama leen a bëgg dolli ni leen deeng ngeen dima wax ñu ni waaw mu ne dama bëgg ngeen dublu ci te bàyyi ni neegal bi wax ni leen ni képp ku am ndom ak tànk ci palu àdduna ba bëgg koo gàllankoor danañ la teg ci barab ba li may def lu noppi suñ la yërëmee jële la ca buñ la yërëmul bàyyi la nga wéy ca noonu may jëlee la ca buñ la yërëmul bàyyi la nga wéy ca daan ndox leen jublu ci li ma leen wax ne leen ku ci feeñ da nga feeñ ba faw waaye ku ci nëbbu mooy sa nëbb ba faw bañ génnee maam Thierno ni leen lu mu wax yàlla ko wax nañ xool nu mu ciy jubloo ñu daal di daje waxtaan dem ci kër sëñ sa gii nga xamante ne nii mi ngi fi mu toll nii ci loxoy sëñ Moussa Mohamed fa lañ dem ñu toog fa woo yi seen benn xaritu tubaab boo xamante ne bari na ci ay liggéey yu mu leen daan jàppale ñu wax monsieur Lala comptoir commercial Morel Prom foofu la doon liggéey waaye bari na ay yoo xamante ne ni buñ ko daan am dana leen ci jàppale bañ dikkee ñu expliqué ko mu ni leen day liggéey boobu yi ngeen wax moom. ñu koy liggéey xam naa ne ay tubaab la ñu doon soowu la ñuy jóge loolu faw ñëw ñu ni ko léegi kon yitte jooju bàyyi nañ ko suñu loxo sa loxo pour nga lijjantil ba tubaab yooyu nu ñuy def ba toog ak ñoom monsieur Lalal wax ak ñoom ñu ñëw njaareem ñu bokk toog ñu expliquer leen ñu ne leen loolu di doj yi koy liggéey moom amul ci seen gox bi faw ndakaaru lay jóge loola di jafe-jafe bu bu yaatoo yaatu bi loolu amee maam Thierno woo Cheikh Mouhamadul Fadal Fall Madior nettali na ko nee na sëñ Fallu moo ma nettalil boppam ni ma sëñ bi amoon nay waxtandoo ñi ko ñooñee nag doon waxtandooy sëñ bi jamono booba man agguma ci ñoom nee na mbirum jumaa ji bàyyi Thierno moo ci boole moo ma woolu wax ma yittey sëriñ bi nee na ba ma ko nettalee ba pare am taalibeb sëñ daam Abdourahman Lo bu sant sàmb loolu la Fall Madior wax nee na bi ko sëñ Fallu nettali dañu ko waaje sàmb la sant waaye waxu ko turoo kooka moo ni leen ci wetu ndokk gis naa fa ay xeer yu sex ci biirum sexaw def ay këll nee na sëñ Fallu wax ne ma ne ma sëñ daam Abdou sëñ maam Thierno wax ma ne ma da ànd ak kooka nga dem seeti doj yooyu su ko defee ñu indi ko tubaab yi dama ko dikk ñu jox leen ko ba xam nu muy def ak liggéey bi sëñ ne nu gont ànd ak kooku dem fanaani tubaab mais eh, bañ xëyee ñu takk aw fas moom mu takk aw fas ñu jiit jiitlante dem doog bañ demee nee na mu wàcc yeew fas wi wër waa ji wan ko këll yi muy wax doj yi ak yaatuwaay bi muy àll bu yaatu taras te doon xeeri kese sëñ Fallu nee na ma wut bant bu dëgër di àkkati ca xeeri di takk ci sama kaala di àkkati ba mat ab ëmb ma togg ko ci fas wa andi dikkee jox ko Baay Cerno Baay Cerno ni nañ ko teg ba tubaab yi dem ko dikk buñ dikkee danañ ko xool ba xam mais bi tubaab yi ñëwee xool ko daan ne waaw kay xeer yi moom moom lañ soxla bu fekkee yii am na fa moom lu jar ñuy dem ndakaar yii xeer dana baax léegi xeer yi fu mu am ñu ne ko ca ndokk maam Thierno daal di joxe ndigal ci turu sëriñ bi nii bi yépp nañ dem ca carrière ba yàlla ji ay xeer indi tuuba sëñ Fallu leen fañ waxoon ni nañ fa wàcce xeer yi ëmb boobee ma ëmboon ba ma jaaree Touba fa la ko sotti continuer dem ndindi ñaari daara laa amoon mu rocc jenn daara ja ndax booba dañoo tollu ci déqi yóbbu ndokk ca carrière moo tax mu naan xeer wu jëkk woo mën a ndax waneen wu xeer wu mën a ñëw sama xeer yooyee ca kaw ca kaw nga ko sotti moo tax ma doon xeer yu jëkk ya mën wu mujj yi moom kenn nattabliwu ko moomu kon waxut ci naan maa fondation jumaa ji wala dara xeer woowee la wax ni maanaam ndax fa ma ko sotti waneen xeer wu ñëw fan ko fekk mag ñi continuer dem ca liggéey am na xeer ya maam Cerno ñëw tuuba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci weeru safar ci 1927 guddi gàmmu la mag ñi tàmbali di roñ xeer ya Serigne Cheikh Mbacké mos nay laaj Baye Gallo naa ko ndax xam nga fu ma jëkk a gisante ak yow bàyyi galam ne ko man fàttaliwu ku ma ko mu ne ko bi sëñ Tuubaa jëkkee joxe ndigalul ñu yanu ñu xeer ya ndox booba laa la jëkk a gis nga yanu xeer jiitu ma topp yanu topp ci sa gannaaw mag ñu foofu foofa lañ tàmbalee di yanu xeer yi di indi ab yi waxoon ko ni ko jumaa ji nga bëgg ci dimension bi nga ko bëgg faw ñu ubbi compte dajale xaalis tubaab xamut tool bu ñuy baytu ñorugut xamut ba ju ñuy dajale lim xam mooy da ngay dajale xaalis ñu tàmbali liggéey bu jeexee ñu taxaw boo dajale waatee ñu tàmbali sëriñ bi fekk maam Thierno ñëwoon na fa ca déwén sa joxoon ko ñaar fukki junni ak juróom-ñett sëriñ bi dénkoon ko soxna suñuy wax awa ci bëkk néegi sëñ Tuubaa yu jigéen ñi la bokkoon yoroon na bunt boo xam ne léeg-léeg nit ñi daanañ fa dox di dem ci sëñ bëgg ñëw daana àggale nit ci sëñ bi moom la soxna soosee la sëriñ bi woo ni ko indil ma loolu ma la dénkoon mu indi ko sëriñ bi wàññi ko muy ñaar fukki junni ak juróom-ñett sëñ bi ni kon bépp taalibe bu aju ci moom na joxe ñaar fukki junni ak juróom-ñett dégg ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett daal képp ku ko joxe mooy sa njot ci sawar daal ni ku ko mënta joxe ku yor sa kilifteef na la ko joxe maam Thierno ni ko na koo yaatal sëñ bi ni ko ba kilikoor mën na faa àgg ñu ko am compte ñu ca bañ a bokk ñoo xamante ni mën nañoo bañ a joxe mooy waa Touba ndox ñoo ma dëkkal ci sama dëkk bi ñooñu rek la sëñ bi ni woon mën nañ caa bañ waaye ñëpp la ko laaj ñu dajale ci 5 millions ci jamono jooju def ko ci banque Afrique occidentale ci le 30 août 1926 sëñ bi am autorisation ci le 30 avril 1920. six la am autorisation di tabax jumaay Tuuba liggéey bi tàmbali ñu jox ko benn administrateur civil bu cercle de Thiès te retraité ñu koy wax tëlëri mu ànd ko beneen waaye bu ñuy wax Artel Bérard nekkoon trésor bu Mbàkke retraité ñoom ñaar ñëpp kenn xamu ci dara ci wàllu maçonnerie ay njublaŋ lañ ay tiriyaa yoo xamante ne ni lekk alali murid yi moom lañ bëgg a sukkandiku waaye liñ ni moom la ñuy def mënuñu ci dara ay njooj ndaaj nag daal di tàmbali xew ca xaalis ba mooy tëlëri jot ma ca lekk un million cinq cent cinq pour cent yoo xamante ni ay àqam ak yelleefam ci ay déplacement yu muy def ay ay ay études techniques yu muy def tibb suuf si xool léeg-léeg mu ñëw xool ndox mi léeg-léeg mu jógee fi dem Touba xool barab bi étudier ci yooyu la sukkandiku ba lekk un million cinq cent ñu gis ni li ñu bëgg fii moom seen xaalis dafiy jeexe waaye du fi sottee belees itam xam ni kii ab la te moom it am na lu mu seqoon ak sëñ bi ba pare itam moo wóotu nguuru France ci senegal kon wër tax xalaat alal murit yi di yàqu ak kóllëre gi séq diggam ak sëñ Tuubaa ñu dugg ci muy coow laneen coow la ci des mooy ñàkk a déggoo diggu gu amoon ci biir yoon wi kilifa yi seen bopp ñàkk déggoo gu am seen biir tax na am na ay coow yu sew yu am ci biir waaye loolu lépp téewutoon ñuy liggéey liggéey nañ ci fukki weer yo xamanteni ni ci gas ay bax ak samp ay de ak roñi carrière bi indi ci lañ tollo lolu nak ñu ko doon xiblaal ci diggante julli kay bi ay bi jëm barabu soxna may japp barabu sëñ isa Diagne bi mag ñu nee la fa déssol ci ciment fofu la tawte buñ da nañ ko seen fofu lañ programme won ngir def fi jumaaji bañ démé ba ci la 4 avril 1927 tuba bi suspendre autorisation bi mayul mayoon tuba xamal ni legi liggéey jumaa mënatul am il faut ñu xam ndax ciow yoy ya, yi nga xamanteni ni mo ci jull sëriñ bi itam wo mam Cerno ni kon na dewi ya, kilifa yi ñu del te ko ba ci kanam ci jamono yoy nak sëñ Mat job Jóob Dagana nettali na ni sëñ moussa ci bopam moo ma ni mo toog naag seigne touba ben jotaay neena na maag moom képp yàlla di sunu ñette neena seigne touba wax ma ni mom Muhammadu Mustafa ne ma ni ko mbak ñu ma jumaa ji ja ca touba na ci sa loxo dam sama loxo dam na ci ni ko Modu Mustafa mu ko mbak mo ko lepp luy tax jumaa ji am am nga ci ndigal ne kérok la ma wax ni may defal na la sam xel muy sa ndigal lepp lo xalat ci luy tax jumaa ji am jël nga ma ci tàgg neena kero it la ma wax ni ma isa ay khasat ko hurubul aida fa nabih la amira suma nam lol aw beuyit la wo xamanteni ni ben bour moko dal tagge ben généralam bu ñu wax amir ar bu jambar bu am efficacité bo xamanteni bouram da ko wóolu ba ni teddi bu guddi say non yela iya neena neel pek pek amir bam mu bour bi nga dem tëri te la ca war amir na ko def neena kero keroog la ma suñ ma yaway sama amir loola di aw sasu rëy woo xamante ne nii sëñ bi sas na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha bañ demee ba ca le 19 juillet di ñaar fukki fan yi ca weeru tamxarit ba sëñ Tuubaa wàcc ab liggéey ñibb si Tuubaa beneen catastrophe judduwaat bu gën a rëy yañ doon wax muy dem sëñ bi loola di lu rëy di yi jaaxle am na ñoo xamante ne ni seen xalaat mooy teg seen njël rek dem ndax Sëñ Tuubaa feesoon na seen bët fees seenum xel xam ne mënatuñ koo supporter li xew mënuñu koo supporter loolu sëñ Moussa Ka di nettali bi sëñ bi demee boo nekkee njariñ ba dégg ak nodd àdduna déetu saf ci yow lu dul ab wurmbal booba ka seen jëmm fees seeni bët fees seenum xel moo xëy ni mes boroom ñeent fukki at taxaw fa mu daan taxaw ñu ni kii ku mu doon mun leen mën ñu ni déedéet du moom mun leen mën a te maanaam jooju delluwu ca gannaaw ba ñépp ni ay la yéwén moomaam te Moussa Ka ni xel fil wara man sàkk annal Moustapha warisal xaddim mu ni ndax desati na ci jamono kuy sikki sàkka ni sëñ Moussa moo wóotu sëñ Tuubaa mu doon diggante bu tar bu metti ci yoon wi nag lool ndax catastrophe weesuwul jëmm jotoon ni sëñ tubaa ak ni mu feese jamono ak fi mu tolloon aduna bépp daw wuti ko nga xam ni sëñ bi dem na ba moomatul boppam ci génn kër gi ab barrière lañ ko wutal boo xam ne am na distance bu 2 mètres nga xam ne kuy dox ci dal barrière bi nit ñi dañuy mel ni ak màggal kuy siyaar si màggal nit ñi ni ñuy def nga xam ne dañuy def am ndiiraam topp nga xam ne mënatul a génn doxantu ci biir barrière bi lay doxantu nit ñi topp buñ doxee tuuti mu taxaw tàllal loxo yi ñaan avancé nit ñi defaatum riir topp nga xamne ne xat na xataay bo xamanteni ni ak ci mom mënatu la nek ci fenêtre lay taxaw di wax ak nit ñi leg leg mu mu pousse fenêtre ci ci neeg bi wax ak nit ñi jaaj leen wat leen seen borom irjo ila rabbikum kelam ne lam ne wat kap fenêtre leg leg mu am jot genn mbolo mi wër ko moy tomb tomb yoy di leen ci jangal moy di leen wat ci seen borom ak di leen xiirtat ci jaamu yalla te xamal leen ni mom ci lool rek la nekk kookee nag xey wat leen gannaaw loola lu tiis la ci yoon wi moo tax sëñ Moussa effort ba mu njëkk def mooy wutal yoon wi capital te xam ne capitalu mouridisme ca jamono yooyee mooy fu sëñ Touba ne gis nga bu sëñ bi Touba demoon nekkoon njariñ kenn mënta fexe ba Touba doon capital mouridisme to Ndakaaru mooy doon capital mouridisme su ko dencoon njaareem tey jiit njaareem mooy doon capital yoon wi te li la koy xamal mooy bi sëñ bi nekkee Gabon xel yëpp Gabon la ne donte mënuñu caa dem bi mu ñibbisee ne ci réew mi fu mu fi ne mag ñi fekk nañ ko ginnaaw bu mu fi jógee dem gànnaar gis ko mag ñi yoonu gànnaar ginnaaw bi mu njële ko fa yóbbu ko yoonu Thiel ak li Thiel di naqare naqare mag ñi amatuñu woon jenn yitte ju lu dem Thiel bi mu koo ñëw njaare bi mag ñi amatuñ jenn yitte ju dem njaare bi yàlla dogalee mu ñibbisi Touba far mu amatuñ jenn yitte ju dul Touba Touba tax lu mënutunoo dem fenn ba dëkk te Touba moom kenn ku ne xam na ne climat bi néexul ndox mi néexul bay nanguwu fi amut géej amut jamaa amut pétrole te ñun ñëpp koo ci gis fi mu doon ni dalaf dalaf jëpp lu am Touba lañ ko jëmee sëñ Bamba mu fi tëdd kepp la bu sëñ bi toxowoon ñaari guddi duñ ko fi fanaan te tëkku na suñu bagage kon loola effort la boo xamante ne nii ka ko def mat naa bàyyi xel bu baax a baax te jom képp la ko defee ak fit ak nag sëriñ bi baax ko ci boppam mu xam sëriñ bi loolu lu am solo la jafe-jafe bi am mooy xëy na liggéey du problème ndax boo takkoo ngir liggéey danga gis ñu la jàppale waaye problème bi amoon dëgg dëgg mooy nas yoon wi takk ko mu doon wenn say di ci benn baat te lu jafe woon la ndax sëriñ bi benn panu tamxarit daanaka la séddale benn panu tamxarit la woo sëñ ahmadou tasrif sugu doomi sëñ jéeri waa dara ni ko ahmadou tasrif mu ni ko mbàkke mu ni ko demal wol ma aafe muy sëñ aafe mu wooyu ko mu ñëw mu ni ko aafe mu ni ko mbàkke mu ni ko seen jàkkaango waaye loolu sax ca fukki fan ak juróom yi la leen ko ci fukki fan ak juróom yi ca tam xaritu ba tam xaritu amee fukki fan ak juróom gaaw ba mujj ba sëñ bi mujj julli ji ci jàkka ji ba mu ñëwee la ni ko demal wool ma avi waaye tasrif ñooy waaye ca fukki fan juróom yi nag ca fukki fan ak juróom muy samedi ba ca mujj ca la ko demal wool ma afe sëñ afe ñëw sëñ bi ni ko afe mu ne ko mbàkk mu ne ko seen jàkkaangoo daan ni ko demal demal wool ma ma sàmba mu dem woy ma sëñ Masamba ma Masamba ñëw mu ni ko ma Masamba mu ni ko Mbàkke mu ni ko dama bëgg nga toog ci pénc ma képp ku yor addee te bu ma gisoon jox ma ko na la ko jox man sun borom dogal na waratuma nangu addee sama kër gi li fi ne li muy bari bari mok sangaraayam ci man daan ni ko demal demal demal wol mo Moussa Jama rak ki sëñ Maguèye Jama doomi sëñ Adama Guèye mu ñew mu ni ko wutal gal tek ko ci pénc ma ku yor addee te nangu ko jox ma sàmba nako ko gal ko doy ko nako def ca gal ga gannaaw sama bakkan yoon wi deetu ñu dajje ci kenn nit kon sëñ bi xamoon na ni mu ngi waaj yooyu yépp ay junj la yàlla dogal na mu dem Touba ca fukki fan yaak juróom-ñeent muy jafe-jafe bu bu rëy rëy gouverneur général ñëw Touba xool situation bi daal ni nañ nañ indi ay soldats pour ñu yore sécurité bi am ca ñu ko xelal ni ko su fekkee murit yi dong la problème du am jooy yeeg jël yi mën naa bari waaye kañ du kenn. su fekkee ñoomu neenu mu ni kon garawul waaye bu fi kenn am 48 heures daal di dellu daal di leen di am delloo nag la leen wax ni leen ni na ngeen daje ginnaaw Sëñ Tuubaa dem na ngeen jiital kenn ndax mënuma su ma leen soxlaa kenn ku nekk ci yéen ma woo mënuma itam su ngeen ma soxlaa kenn ku nekk di ma woo te booba mag ñu xam nañu tubaab li mu leen wax dégg nañu te xam nañu artu ko gi mu leen artu leen mënuma bu ma soxlaa kenn ku nekk ma woo ko mënuma it bu ngeen ma soxlaa ku ne di ma woo ndax diggante boobu yi sëñ bi dem gouverneur général da ciy jot ay leetar yu bari kenn ku ci ne bëgg wane ni may kilifa gi moo tax mu ne leen daje leen ngeen tànn le 23 mag ñu daje tànnuñu kenn sëñ Moussa mënu leen a imposé boppam ne leen may jiitu waaye am na mag ñu am ful la ñu ne ci biir ñu xam sëriñ bi te xamut joxañam jox seen bopp sëñ Moodu ànd ak moom ba ñuy wax Seex Faal ni moom xamut doon sa baay doon baayu jàmbur mooy lijjanti bi moom lu mën a xew moom rek sëñ moom nañ ci génn teel bii moom kenn waxalewu leen te njaboot gi sëñ Moodu ci mag loolu ab taxawaay la ay instruction yu bare bari jóg na ci waaye mag ñi fu leen dëgg mos a fekk dañ leen fa bàyyi sëñ Balla Fally Dieng ba ñu waxee dañuy Balla Fally moom lànk na lànk na lànkaale ma ndumbe sëñ ma ndumbe mu jógee dañuy ma ndumbe lànk na lànkaale Ibra Fall bu ma lànk-lànk yi bare nag léegi danañ solution dana am waaye taxul ñu am solution ci kuy jiitu le 25 mu le 26 tubaab bi gouverneur général door a ñëw mooy mbir mi tënn mënaguñoo désigner kenn génn yu ñëwee moo wàcc ci kër commandant de cercle mboolem chef de canton yi nekk ci réew mi ñëpp la fa dajale bi mu dikkee mu wax yéen li Manuel Fall ni ko dem leen ci Denis ba ngeen ngeen réunion ji ngeen chef de canton yi mu murit yëpp mun leen yéen ñëpp naa leen fekk ca péncum péncum kër gu ma bu kenn des ñëpp fekk sax bi ñu bi nekkee ci kër commandant bi yàgg na bañ bëgg a xàddi waaye commandant bi moom leen yéen ñëpp xàmme naa leen ku dem bu góor loo dikkee danaa la boole ñu jekkalaat toogaay yi waa ngaa yi yëguñu tubaab toogaay yi toog daanaka toog nañ fa ba tisbaar di bëgg a jëf gouverneur door a ñëw door jox joxe ndigal loolu mooy chef de canton yi nañ dem ca Denise ba ñu réunion yi seexi murit yi na leen fekk kër gu mag ñoom ñëpp ñu ñëw daje ay commandant bi ñëw ñu tegal ko taabal teg ay sées daal di toog léegi moom mu ni ndax ñëpp ñëw na ñu ni ba léegi am na ku des mu ni ku des ñu ni Cheikh Ibra mu ni nañ ko wooyi léegi ñëpp a ngi topp bi Cheikh Ibra ñëwee ba jub jataay mbaxanam mi mu soloon da koo summi yëkkati tànkam ñu summi ko bot yi mu ram lamb poosam ram nuyu suñ mu soir général fi mu toogoon la fëgg taabal ji ni leen science bi jeenoo li ma doon seet gis naa biñ ne am na ku ñëwagut dama defoon ko ki ñëwagut mooy kilifa mbooloo mi ndekete ko ki ñëwagut jàmm Mouhamadou Moustapha Mouhamadou Moustapha mi laa fi teg lu weesu tey bu ma kenn woote te ku ko respect ma ak yow loolu tax boo demee ci tubaab yi seen histoire dañ naan ñoo samp xilaafa waaye sëñ tubaab moom waajaloon na gannaaw loolu mooy mooy mooy la ca ne te la leen tubaab bi wax gëm nañ ko loolu mu leen ni leen lu weesu tey bu ma kenn woote yéen ñëpp topp leen ci gannaaw mu Moustapha loola ni leen nag bu ma dégg kenn ko wax ku ma dëggati rek maag yow te gis nañ fi mu jaar ak sëñ bi bëccëgum dara kam bu leen ko waxee danañ ko gëm loola di ab jataay waaye sëñ moo du jëfandikoowut doole jooju daa wax ni doole yi sëñ Tuubaa ji des ciy dimbale waaye desu ci tooñ desu ci fayu dañ ciy dimbale benn commandant bu ñu wax Sambonaat ñëw na Tuubaa ànd ak muniru coy moo doon interprète bi ko doon tekkil li muy wax ci wolof mu dajale kilifa yépp nee benn nen la indaale bi mu bi mu nuyoo kilifa yi ba pare daaw mu mu niiru cooy ni ko jox ma ëf bi ci biir saag bi mu niiru génn saag bi génn nen bi jox mu yëkkati nen bi wan ko kilifa yépp bañ gis ko mu waaye mu bàyyi nen ci kekk moom bu nee tajax rajax lay def mu ne leen ku ma moytuwul ci Mouhamadou Moustapha mi nii la lay def kilifa gu mag keroog nee na tubaab bi la mu waxoon gëm nañ ko ndax xam nañ fi mu jaar ak sëñ bi waaye sëñ Modou ba mu àddoona ne ko sama digg ak sama bokk yi dugaluma ci kenn lu ñu am danaa leen ko bàyyee te lu ma am dana ko bokk ak ñoom te ku ma ci tooñ ma jéggal ci ndawal ñeen fukki at kon ko ku ñemee responsabilité ku ñemee jaboot la xam li ko fi sëñ bi bàyyi kon léegi sëñ bi dem na sànc bi fi sëñ bi bàyyi woon autorisation bi suspendre nañ ko njaboot gi ñu ngi fi bàyyi yaa ngi fi rakk yi mbokkal sëñ Tuubaa ngi fi taalib yi fi doon wuti si sëñ baa ngi fi waaye sëñ moo du ni kenn kay topp ma du kenn kay ànd ak man kenn ku ci nekk dala bàyyi ak sa bopp nga xool la la neex nga ne ci te loolu boo demee ci mbay wayi sëñ bay jaxatu yooyu mu naan man nangu naa nangoo ma war kon ah, tey it dañuy nag ñun ñëpp dañ daan bañ bañ loo ko kos-kos lu te noo yay nag waaye tey jii li fiy dëgg tey dëgg mooy yaa fi moom daa set wax boppam waaye ñun ñépp la wax mooy ñëpp nanguwuñu woon à 100 pour cent commencé di jaayante di ko jox seen bopp. mag ñi commencé am ay lay yu ñuy yu ñuy sukkandiku tey lay yi dëgëru am na ci menn mag moo xam ne sëñ Moussa Fall moo ko seeti di waxtaan ak moom ni ko loo jëlee ci sëñ Touba mag mi ko ah, sama waajo la ma jox daal di ubbi gaal gu mag génn gaal bu ndaw génn ci ab faxaya bu taq daa boo xamante ni sëñ tubaa ko soloon mu taq daa bi ko sëñ bi summee xëpp ko nga xam ne sëñ bi da koo summi xëpp ko nga xam ne loola moom bu koy nettali sax da koy defaat àll ndax fonk bu fonk morso sëñ Moussa saafal ni ko ah, ab faxare bu tàq daade foor na waaye daade defe naa ni dara te ko gën a foor muy morso boobu yi nga taq di kap kap yi mu mu sa ko ëpp doole waaye ba mu ko waxee dañ ko ah, doom yaay nga ma de yaay nga ma daal def jox boppam sëñ Moussa yooyu yëpp yaatu dënd la ak xajoo gum leen xajoo waaye moom yitteem gannaaw sëriñ bi rek mooy naalu woow yi nga xamante ni moom la ko sëñ bi joxoon gannaaw sëñ bi nag dañoo yoonal ndax sëñ bi ab jullit la boo doon dund ci sariya bàyyi fi alal ak njaboot ñu war koo yoonal gannaaw kenn ku ci ne lay sa àq ñu jox la ko loolu itam dañ koo def ndax keroog le 19. bi ñu paree fii ci yor-yor ba ñëw njaarim borom daaru mi nga xamante ni mooy kilifa njaboot gi la mu leen njëkk wax mooy reer reer ba ñu wàlloon biig yoon deful ñu reere ko tey ndax ki ko doon joxe moom jël wàcc na mooy magasin yëpp nañ ko tëj ba yoonal sëñ magasin yëpp nañ ko tëj nga xam ne ku fa mën a ne moom fi mu doon ci sa pexey bopp nga waroon ne di dund ba keroog ñu yoonal sëñ nga xam foo féete ndax loolu la leen sariya sal sëñ Moussa ni leen de ab dund mënta taxaw lu ne mën naa taxaw ba mu desub dund dund bi ci biir kër gi bépp nañ ko recensé xayma ko nu mu toll ñu gàcc ma ko te bàyyi dund bi continuer loola taxawaay bu rëy rëy la ba mu taxaw gannaaw sëñ Tuubaa ndax buñ tëjoon dund ba di xaar ñu yoonal sëñ bi kër ga dana tasaaroo mooy kenn ku ci ne da nga da nga yóbbu sa sab jigéen ña ca des ànd ak seen i càmmiñ tewe yi wuti fu ñu rawale seen bakkan waaye dañu ab lu ne mën naa taxaw moom des ab dund nañ xayma dund bi nu mu toll ñu gàcc moom te bàyyi dund bi mu continue ñu wéy lool ñu ñu ñu yoonal yoonal sëñ bi kenn ku ci nekk la ci sàq kiw mu doon taxawaat na reconduire at projet bi bi sëñ bi bàyyi woon mooy projet bi jumaa doxaat ay tànk ci soxla autorisation bu ko mën a may mu fondation liggéey bii nga xam ne moom la fi sëñ bi bàyyi te waxoon ko a kenn jël bañ ko yow sama maam ñu gis ni kon ci yitteem jooj yi nga xamante ni moo ko yitteel ci la mag ñi taxawee ngir yitte jooju mën am tubaab yi ne fee galgal leen gis-gis yu wax ni projet boobu mënatul am ndax jumaa jaarim ji liñ ci daj sombi waat fi jeneen jumaa ci jamono ji ak ji moom kenn du ko def ñu ci nekk jaar ci barab ñi mën a wax jàpp ne bu ñu waxee du am ñoo ngay wax ñeneen ñi nga xamante ne nii jàpp nañ ni sëñ Modou lii mu bëgg daa war a am laxasaay ñu nekk ci cercle boobu yi di ci wëndeelu tubaab yi dugal ci ak caay-caay. parce que xam nañ intelligence bu sëñ Modou xam nañu itam efficacité xam nañ ak njariñam xam nañu itam niñ ko mën a jariñoo te bëgguñoo tàqali ko moom ñu ni kon nañ ko may juma te xañ ko juma mooy léegi nañ ko nangul autorisation mën naa tabax jumaa waaye nañ ko ko xañ mooy nañ ko teg condition yoo xamante ne ni du ko mën su ko defee moo koy bàyyil boppam te su diggante du yàqu moo tax ñu ni ko yoon jumaa ji nga wax ci dimension bi nga ko bëggee matériel bi koy liggéey vérifié nañ oto yi nekk ci biir réew mi yu ci mën a déplacer bagage yooyu amul il ñu am saxaar yoonu saxaar mooy tax liggéey jumaa ji mën na sotti ndax mooy tax matériel bi mën a demandoo Touba mooy tax itam lu bëgg a jëlee Touba yóbbu mu jàpp sëñ moo dindi kon teg na yittee jumaa léegi yoonu saxaar la loolu rek mooy yittee nañ ko wax nu muy def ba am yoonu saxaar ñu ne ko dangay ngay bind ab demande yóbbu ko conseil privé buñ ndajee danañ ci réunion France lañ koy dogale mu bind yóbbu gars yi réunion envoyé dossier mu dem ñu d'accord andil ko réponse ci ni mën naa ne ginnaaw ab diir buñ ko xaarloo waaye moom dafa yàkkamti ndax nee na liñ ko battalee ak ñiñ ko battalee nelaw xaju fi ndax sëñ bi dafay bàyyi ay tout tànk yoo xam ne dañu la war a taxaw te ëllëg yoon wi ci seen kaw la jëm mu war leen a taxaw bàyyi fi ay sànc yoo xamante ne nii su leen wanee gannaaw te sànc yi taxawul mën naa deetu taxaw wala dana yéex yooyu yëpp mu bëgg koo boole ñu teg ko ay sart ñu diis waaye mu nangu mooy wut ay ouvrier yaa leen di dundal ko ci yàq yëf jàmbur ba yoon war koo topp ci yow lañ koy àtte ndax yaa leen fi dajale yooyu yëpp wutal ko ab boo xamante ni su ci àggee te liggéey bi jeexut loo ci defoon da ngay ñàkk ndax dañoo amaat yeneen occupation yu yu ñu war a def yooyu yëpp ay gàllankoor lool waaye moom mu tekki ni tubaab yi dañoo xamul bu ñu xamoon fi ma yëf yi toll bu ñu demoon da ngay solo ji soldat diggante dat sàngam ba dat sàngam mooy tax nga am yoonu saxaar ma solo ji soldat ndax sëñ Bamba jaral na ko foofu la dimension liggéeyal Sëñ Tuubaa toll ci moom mu jël bakkanam nag teg ko ci parce que mag ñi dañu lu bakkan jënd jaar na Sëñ Tuubaa daf daan wax ni booy wut dara te bëgg ko am dangay ngay wekki sa bakkan teg ci wekk nee boo ko defee da ko am ba pare am sa bakkan waaye nee na lépp looy wut te jarulul sa bakkan doo ci jariñu moo tax sëñ Modou tegoon ci bakkanam moo tax bi tubaab yi dajee crise bi tàmbali tubaab yi jaaxle nit ñi di tuxu seex si di di bàyyi njariñ di delluwaat ci seen dëkki àll ya commerce bi di commencé daanu impôts yi ñu doon teg léegi mënatuñ cee dajale lu bari ñu ne ah pexe wut pexe jot na sëñ Tuubaa moom fa mu ne suuf du yàq yaram te lii bu continuer du baax léegi nañ ko jëli indiwaat ko njariñ denc ko fi bu ñu xëyee déclaré ni sëñ bi dellusi na ñu daje ñëw wax sëñ saa seen xalaat Sèye Blatt nee na fa la ko fekk mu toog mais bi ñu waxee ba pare sëñ Moussa daa ràbbale ay baaraam ni leen ah loolu rek moo ci seen xalaat ñu ne ko waaw mu ne na ah néew du am waaye sëñ Tuubaa daal fi mu doon déetuma nangu mu ran du jëm fenn saa bakkan bi nag laa ci teg Sèye Blatt nee na keroog laa xam ne kuy lëggeel sëñ Tuubaa sa bakkan nga ciy teg moo tax déerub lim fi ne saa yoo déggee mu jël engagement daan saa bakkan bi laa ci teg nee na foofa la ko jàngee kon gis ni. liggéey la bu am solo boo xamante ne ni sëñ Modou sonn na ci ba bi yoonu saxaar yu pare détails yu du fi xaj xëy na jataay bii yàgg na jataayu raay bi du fi xaj mu jot autorisation jumaay Touba engagé beneen société bu war a jël liggéey bi tëlëri porte ko plainte ndax contrat bu njëkk biñ ñu won té ay galal ko taxoon ñu suspendre contrat bi mu wax ni dañ ko wara a dédommager ko wara fay xaliss ndax santé bi yëfam duggu na ci te ko wara don bo féké bor ya koy fay kon sëñ Moussa lay porte plainte ndax mo don sëñ Touba mu attaquer ko tribunal lolé itam di ciow lu bari bari ak tuwab bi boole ko liggéey bi du taxaw yooyu itam di di ay jafe-jafe yu bare bare ba am tribunal ca France masolong dem ca teewale fi sëñ Moodu waaye képp ku la wax ne ne ab tribunal tubaab dana am boo layoon nit ku ñuul nit ku ñuul ko gañe ko ca yooyu jamono ku la ko wax waroo koo gëm mooy tëlëri moom moom lañ def mu gañe projet ba ñu defaat appel ñu toxal tribunal ba indi ko kaw la sëñ Moussa ba mu cay dem ñenn ci ñam bokk yam àndaloon dañu ko day mënul sa boo xamoon ak tubaab lii doo ci dugg da jigéen ci génn bañ ko wooyee Kaolack lañ ko wax mooy dañu ko dañu bëgg nga xam mba xam da nga fay wala doo fay parce que dañ koo amaan waaw wala déet mu ni leen su fekkee nguuru France damay daan na ma ko wax nañ ma wax ni ma dañ lay daan daan ni leen nag lu mel nii moo tax góor daan dër te mbir mi sama ñaari tank la ci dër suma ma te kama ma daan far ma nag kenn mënulu ma dara te dër na ci sama ñaari tank lolo doon jafé jafé du bari leg leg na nga dégg mori ci xorom yi di wax naan léegi ñu ko bul ka wol ki ah tubaab ba da jógee France avion ba tak yoy iya, yëpp dara du ci dëgg gitu, tëlëri nek na ba 56 mo fi mujj seigne Moussa yooyu ci am xel lañ ko doon lijjanti ak ay ay këyit mooy sëñ Moussa daal tël tël nekk di xuloo ko di yëkkati dinaa la ko dem ñu yëkkati deux cent cinquante mille jox ko mu dem mu continuer ab liggéeyam war a jublu nag ci liggéeyu jumaa ji bañ àggee ca kori wa ñaari fan ca kori ga altine lañ wari talaata ci 1350 ci gàddaay gi di 1932 de le 9 février le sëñ Moussa wo jamor gi mbokal sëñ touba ñëpp chef sepp la wo ni leen nag gàllankoor bi nga xamanteni ni mo moo doon gàllankoor liggéey bi ba te ko tambali booba yalla jeexal na ko yoonu saxar gi léegi yoonu saxar gi jeena liggey nañ ko ba saxar gi agsi na titre foncier bi mooy Touba ci boppam 4 kilomètres yi sëñ Moussa bàyyee na ko ba def nañ ko ci këyit def ci turu sëñ Touba ndax dañu ko wax ni ko liggéey bu rëy bu toll noonu yi din kenn du ko def ci suuf soo moomul soo ko ci defee bu ëllëgee baneen kilifa tubaab gu fi ñëw te jubawul bu ko neexee mën na koo toj mbaa mu jaarale caw yoon te du la dee ba du la dee dommage moo tax sëñ Moussa titre foncier wutal koy këyit ci 1928 septembre 1928 fekk na tubaab indépendance benn tubaab sañu tufee ñëw te ñaanoo ko ndigal ba mu may loo loolu doon liggéey bu rëy Sèye Blat daan wax ne ma gën a yéem ci suñu sa mooy noonu fexe ba tubaab suñ tubaab jur amoo ci baat ca jamono yooyu xel mu ñawee noonu waaye nag la doon lax rek mooy su ma duggee ci kàmb boo ci yërloo da nga ca fekk mbooloo muy damay diisoo. te ñi may diisoo su ma dee toog ca kaw ñu toog ci suuf sëñ Tuubaa tax waaye ëpp ma leen ngor ëpp ma leen diine daq ma leen a jàng suñu Bàmba rek a tax ma toogee ci kaw ñu toog ci suuf nee na ñooñu lay diisool te daan wax ne kilifa gu ne war am ngor su amul reer te réerewut diine ngay diisoo moom ndax ku amatul reer moom booy diisoo moom na mu def ba ab reeram la lay wax lu mu xam ne bu la ko waxee nga mer loolu du la ko wax mooy man nga ko sañ nga ko rek ak soo ko defee soo ju duggee da ci génn loolu dong la lay wax boo ci duggee tëjee nag ñu naan ah, man de damaa rafetoon njort ni sëñ bi boo ci duggee waaye dara moo tax jëfandikoo sam xel lu am solo boobee mu wootee njabootu sëñ bi daf leen wax ni leen ni liggéey bi ci laa bëgg a jublu yëguma nag laay bañ dëgg mën naa ko te duma wàññi lu ma am nag danaa ko ci def lépp lu ma waayu jox danaa la ko ci def loolu ñaari fan la woon ca weeru kori wa di le 9 février bañ demee ba ci fukki fan ak ñaar ca mois de février fukki fan ak ñaar yi ca kori wa di fukki fan ak juróom-ñeent ca mois de février lañ def reconnaissance place jumaa ji mooy ñu defaat beneen reconnaissance reconnaissance bu njëkk bi mooy penc mi neen bi ci des nag mooy sëñ Tuubaa ñibbisi na ci dëkk bi te ci biir këram lañ ko denc te sëñ Moussa nee na dëkk bu sëñ Tuubaa ne dama ca mënta julli di ko woon gannaaw te fañ naa loon jumaa ji bu njëkk buñ fa jullee buñ sëggee ñun ñëpp sëñ bi lañ koy woon gannaaw te sëñ Tuubaa sëñ Muusaa saa na imaam warut a nekk ci gannaaw imaam daa warut a jiitu moo tax mu ni kon jumaa ji dañ koy reculer mu ñëw ci gannaaw mooy dañ koy bootal sëñ bi te mag ñëpp d'accord nañ ni sëñ Tuubaa moom ci ngoon lay ñëw Tuubaa moo tax bi ñuy wax dañu bisi siyaar yi dañuy ngoonuk alxames takkusaani alxames ak yoor yooruk sëñ bi suñ mag ñi moom d'accord nañ ci ni sëñ Tuubaa alxames ci ngoon la fi ñëw mooy jiite ajjuma bu samdee ci yooroon mu dellu ci lam newoon koo man doon imaam it suñ benn ci kanam loolu mag ñi seenu gis sar moom xam nañ loolu sëñ am satu jaxate daa toog foofu yi ci sow jumaa seen si Abdoulahi borom dëllu mu waaxu wut si biir jumaa ji mu ne Abdoulahi de wilaayam gu réy gi ñuy wax tey jii danaa ci xam dara mag ñi ni tekk di ko déglu mu ni jàll sëñ Abdoulahi dugg ci biir barab bi génnaat mu ne Abdoulahi de lañ ko doon wax ci wilaay mi ngi ci moom borom barab bi di nekku fa sëñ bi la doon seet waaye nekku fa kon sëñ bi am na jamono yu mu fay nekk biñ demee ci fukki fan ak juróom ca Koriwa di ñaar fukki fan ak ñaar la sëñ Moussa Dooral daggulu bépp ga muy bépp gi newoon ci keppaaru sëñ bi ngir tàmbali jumaa ci ñaar fan ak ñaar yi ci mois de février la ko daggul bépp ga itam ba mu koy lu mag ñi bari wax nañ ci seeni xalaat ndax bépp géeg yàgg gi mu fi yàgg fekk gi ko fi sëñ bi fekkoon ci sanc beeg li ci sëñ bi waxoon naan mooy sajaratu saada buntu yërmaande bi jëm ci suñu borom beneen bunt bi sëñ bi ubbi ci sowu jant fofu la tim taxon na mag ñi leen bépp gi wari su ko dagg sëñ Moussa ni leen yeen de seen xam-xam ci sëñ bi néew na ni leen bépp gi da mel na nga am sa alal ju for jo xamanteni ni mënoo ko ñàkk nga gas ci barab ba mu nga denc ko fa wut bantu xat samp ko foofa ngeen xàmmee ko fi nga denc sa alal mu ni foo mën a jëm ci àdduna bantu xat baa gënal loo ma nam mu ni bépp gi màndarga rek la woon ci barab boobu ginaaw borom ñibbi si na dafa nag barab bi moom mënatu la réer moo tax ñu dindi bépp bañ demee ba ca ñeenti fan yi ci mois de mars di ñaar fan yi ak juróom-benn ca kori lañ tàmbali gas pax yo gasi pax mag ñi tàmbali jumaa ji lañ daan wax waaye mos ñoo wax 4 mars tegu feer loolu ci yu bees yi la génn waaye tàmbali lañ daan wax mooy tàmbali gas fondation mag ñi dañoo tàmbali gas fondation ba fondation bi dee ba pare ñu door a tegu xeer léegi bii bi jamono yi tappali yooyu commencé xew la ñuy woote tegu xeer xamal àdduna bépp ni damay song sànc sàngam ku nekk indi la muy jaayante nga door a tàmbali waaye mag ñi moom liñ daan liggéey yaakaaruñ ci woon fenn ndimbal seen bopp rek lañ ci yaakaar moo tax dañuy tàmbali lu ñu am def ca ba keroog yàlla du sottal parce que boobu amul ONG amul gouvernement amul milliardaire amul bailleur bu ne ci réew mi bu suñu mën saa di xaar ay gor rek yu jaayante te fas ñu yéene woon gannaaw te yaakaar seen i wagg képp la am ndax booba bay doo nga bay te bay boobu booba wagg yu nangoo koy def ndax fas ak machine xewul tracteur xewul ngoos ngoos ak larmet rek képp la mag ñu doon bay jaay gerte jëndeb ciment ñëw tabax rootum ndox ci déeg yi ñëw def ci citerne yi rooti ca teen ba ñëw tooyale ciment bi woowu ñaq dong la mag ñu doon liggéey ba jumaa ji tax ci la 26 mars nag ci 1900 le 25 mars 25 mars 1932 ci la sëñ Moussa teg xeeru jumaa le 25 mars 1932 ci la sëñ Moussa teg xeeru jumaa ñi sëñ Tuubaa jur suñ Ba suñ Basiiru moo ko ci fekk ñi bokk suñ sëñ Tuubaa bàyyi sëñ Masamba ko ci fekk loolu la yàlla doxal histoire kenn mënu koo fars kenn mënu koo wëlbati ñii la yàlla dogal ñu fekke ko ci ñu sant ko taalibe yi ñu bare nga fa woon bisu ajjuma la itam ba mu ba mu tegee xeer ba pare la fa julli tisbaar seex sat bu Jóob moo nodd sëñ ba Lamin Jóob nodd noddu ñaareel sëñ Moussa jiite bañ pare mag ñi commencé yëkkat seeni xasida ñu ci des indi seeni way ci walla fal Cheikh Ibrahima Diop almasar yi li mu tagg sëñ Moussa eh, keroog jàng na ci lu bare bare boo na fal jàngkatu xasida la bu neex baat yoon jëfal sëñ ma ndumbe ahmadu ndumbe xàmbaan yéeg na fa ca kaw jalug suuf yuuxu ba fa baatam yam ni leen jumaa ji ca kaw mbaa ma ndumbe ci biir suuf jumaa ji ca kaw wala ma ndumbe ci biir suuf daal ni mboolem ñi fi teewoon ñëpp sant na leen ndax ñoom ñëpp moom la ñuy dimbali fas na yéene lu mu sañ sëñ bàmba dana lëggéeyal sëñ Moussa bi fukkam ne bakkanam bii la wekki teg li fekk sëñ Moussa amul li mu bëgg taxawaay bu mag a mag na ci mag ñu taxaw mag ñëpp laxasaayu ñëpp kenn amatul jenn yitte na judul yitte yi jumaa ji rek ñu taxaw mag ñi ñooy tibbi suuf ñooy yenn ji xeer dog ñooy toj ñooy gaas yi ciment bi ñoo cee def maître maçon bi ba layti njaay la moo doon maître maçon bi ñaari doomam lañ àndaloon Badara njaay layti ak Pape njaay layti ñoom ñooy maître maçon yi nekk taalibe yi booba ñu ci bare bari sëriñ bi formé na ne ba xarala yu bare bari mën nañ ko diggante ay ministère ay daaj ak yooyu yëpp yooyu manoon nañ ko parce que bi fi sëñ bi Tuubaa nekk loolu muy def lu njaboot ñoo koy def ñooy daaj taabal yi ñooy daaj lal yi ñooy defar jaafure yi ñooy tëgg furne yi ñooy defar gaal yi loolu taalibe bi yëpp manoon nañ ko te doonu woon ay tëgg doonu ñëwoon ay wóole sëñ Tuubaa da sëñ Moodu Maamun ci boppam sëñ Tuubaa ñëwloon na ko jaafur kon boobu du caagee ni wóole rek mooy def ak jaafure ñooñu ñëpp loolu la leen doon doon def loolu moo tax ñu ne am na benn bis boo xamante ni nii waa kere yi ñoo aaye suñu Moussa mbay kere moo aaye parce que mag ñi dañ doon ay ay loo ne dañoo amoon bis boo xamante ne ni da ngay gont fanaan si boo xëyee di léggéey ba ba ngoon jot nga ñibbi bu ëllëgee keneen ñëw boobu suñu Moussa Mbaye kere moo ñëw mais suñu Moussa toog foofu ci xay yi kër Sëñ Saliou Mbacke boo xam ne xay yu bare fa ne mu toog fa waa kere yi yor seen dënd yooyu di tëgg gone yi di tibb ci ciment bi di yàlla yi dama ko ñëw suñu Moussa ndax yàlla ndax yàlla lu ñu tey kenn mënu ko tey ay gone jigéen di ko def mooy gone yi ak jigéen ñi la ñuy yan ci ciment bi ñuy sol di sotti fondation jumaa ji dafa gudd 2 mètres la guddee ci suuf Sëñ Tuubaa ab suuf terrain la ne fi mu doon barab Sëñ bu ñu la ko ubbiloon da ngay descendre da ngay wàcc ci suuf ci kaw la parce que jumaa ji dañ koo sëkk gis nga boo yéeg ci suuf yi ci escalier yi foofu la barabu Sëñ Tuubaa bi toll looy gën di yéeg yaa ngi gën di tiim barabu sëñ bi boo accès ba ci biir barabu sëñ fi mu doon ni barabu sëñ ab kaaw la suuf la nekk néewut fi ngay fi ngay natt néew fi mi ngi ci suuf jumaa ji dafa xóot fondation deux met la bi ma koy laaj mel na mag dañu ma sëñ Abdoulaye Diop mu ne ma keroog bi ci minbar bi sëñ Abdoulaye Diop dugg na ci dimanche pax mi ñuy sotti béton muy nangu palaat di sotti di sotti ba génn moo tax mu ne ma deux deux mètres la te am njool la woon mu am daraja waaye nee na ci dee boobu dugg na ci biir ba maase kàmmo nga xam ne dañ koy jox palaat béton yi muy sotti di sotti di sotti di sotti ba dox génn guddi gàmmu it lañ ko sëkk fondation jumaa guddi gàmmu lañ ko mag ñi sëkk guddi gàmmu lañ ñëw si sànni tey jàng amul liggéey am liggéey ci guddi gàmmu boobu lañ sëkk fondation bi ba maas genn guddi lañ ko sëkk sëñ ahmad tasrif sugu moom yi di doomi sëñ njéeri waa dal bi mu ñëwee sëñ Moussa ni ko ahmad tasrif mu ne ko mbàkk mu ne ko demal xool sama liggéey sëñ ahmad tasrif da koo ñëw wër ko dikk ne ko ah waaw liggéey bi di tuwaar fukal la moom xanaa xanaa danga cee jóom sëñ Moussa ni ko ci lan mu ne ko ah damaa yaakaar ni kuy kuy rëddal sëñ Tuubaa da nga rëdd lu ëpp lii sëñ Moussa ni ko da ngaa xër rek sëñ Amadou Tassirou nee na keroog fas wa ma waroon laa ko joxaat ñu addiyee ni ko tuubee naa ko baat boobu bi ma wax waaye sëñ Moussa dañu koon saa yu ko waree yokku des na ko dolli wax waaye rëdd bu njëkk moom bañ ne ko lii daa tuuti moom da koo yokkaat da caa yokkaat rëddal nga xamante ni nii mat na téeméeri mètre yu manqué tuuti nii juróom benn fukki mètre la ak yu teg ca jamono boobu miiru jumaa ji ni mu tale doo ko gisaat ci beneen miir ci biir dëkk bi bu tale noonu duggal ci biir jumaa ji nga xool miir bi di ko wër ni mu tale 187 poto la 154 yi sëñ Moussa moo ko liggéey 33 yi ci barabu sëñ Tuubaa bi sëñ Fallu moo ko def moo tax boo demee ci Moussa Ka daf lay wax ni la Cheikh Moussa waa fondement ak jumaa ji ba mu weesu xaaj mu bàyyi ko alxaaji tabax na bay tàmbali ay fenêtre ca wet ga féete gànnaar daal di gedd ay xeer Cheikh Moussa moo tabax kenn jumaa ji ya dafa bàyyi mu bàyyi ko alhaji barabu sëntuwaat moo tax ñi wax naan jumaa ji ay barab la dañoo xamul barab jumaa ci miin bar lay tàmbalee jëm ci soow barabu sëntuwaat Tuubaa bi ak minbar bi soloon boole ko jumaa ji ñaari dal la xubba yi ngay seen ci suuf bokkut yi ngay seen ci kaw boo yëgee ci kaw bokkuñu diggante ñaari xubba yi mënees na cee dox man ngaa dugge ca sooroon ba ñuy nodde ba agsi ci minbar bi ñi ci suuf duñu la seen ñi ci kaw duñ la seen ñaari étape la ñaari kuulaas ñoo ko seen loolu lépp ay taxawaay la te liggéey bi wér gi mu wér ak coono bi ci mag ñi daj te sëñ Bàmba dong tax loola rek moo taxoon mag ñi bi ci sonn loolee nag sun nu fi bàyyee seen gannaaw nu dëkke seenu gent nun ñii ñëpp mag ña doon xëy ndokk di yanu ci xeer di roñ ba di ko aj tey nun ñi noo dëkke seeni kër yor seen deret di dund ci seen barke te mënuñu la mag ñi mënoon kon am na suñu jom kenn ku ne yaa war a yeddaat sa bopp kenn ku ne yaa war a yeddaat sa bopp ndax mag ñooñu ñoo leen noonu mag ñooñu gor aw lewu boo xamante ne nii fa la daan xus loolu loo xam ne dana ci yot sëñ bi yor ci njaboot bi lew woowee ñëpp ca lañ bokk dëkk te teewul am na luy booy kon ana suñu jom te fi mu ne nii koo ci tëgg foog ne koo ci gis danaa la yaa gën sa bàyyi ngay yëngu yëngu defe ni wax nañ dëgg ñi la ko waxu ñu dëgg yow mi koy dégg déggoo dëgg ñi koy dégg dégguñu dëgg gënoo sa baay mënoo ko sa baay la gën moo la man ndax barkeem nga yor ba ci gone yi léegi fi mu doon koo ci tudd boo tudd bàyyi di su ko xam tural sëriñ bu la neex na boo yemee ci tur wa képp ñun la man ci ngay wax nga ni moom diw moom sëñ diw tural na ku sam xel jàpp rek tural koo ni sëñ diw rek fi mu doon gaa yi ñu la koy wax waaye boo nee sëñ Mourou Sane tekk ñu xam ni taw Bàmba ba lay wax ba ma nee Mouhamadul Fadel ni tekk ñu xam ne sëñ Fall lay wax ba ma nee Cheikh Mouhamadul Lamine ñu xam ne sëñ Baar lay wax ba ma nee sëñ Basir ñu xam ne yooyu waaye kaneen koo fi ñëw ñun la moom kan kon kookee ñu lay laaf ci moom ñu doon laa xam boo ko dee diir mbagg amoo jom bu ñu waxante dëgg waaye wóor na la ñooñu duñ sa morom te waroon nga it foo wéete di leen ñaanal waroon nga it foo toog di waxtaane seenu baax ak seen pas-pas ak seen pëstëf loolu rek lañu leen dese kon am nañ bor bu nu war a fay waaye war na noo feddiwaat sunu laxasaay te tab te wàññi coow li coow li bari na yoon wi daa yëngu waaye doxul waaw loolu moom maa leen ko yóbbante yoon wi yëngu na waaye doxul luy yëngu luy dox nag bokkul ndax ginnaaw sànceb mag yooyu fi mu doon nii doo fi tudd dara lu bees fi mu doon nii sànceb 37 milliards kenn ku ne ci ñun yaa ngi koy rëjjulu na ah, 35 milliards 37 te xaw ma kat ñenn ñi defe nañ ni moom fi mu doon nii moom li def ci seen dund moom duñ ko duñ ko bàyyi mu pare waaye nañ ci ne rek li sëñ Mountakha wax rek mooy bu mu laal suuf rek ñi may wóotu la wax bu mu laal suuf ñeneen ñi may wóotuwaat bu mu laal suuf kon xam na ni liggéey bu diire la waaye liggéey la boo xamante ni buñ ko defee fee ñett téeméeri at loolu ñu naqari woon ci yoon wi dana saafara li nu naqari ci yoon wi mooy mooy li ci xew yu bees yi yu xew yi ñuy fent di ko wax di ko tuumaal sëñ bi te dara teguwu ci dëgg te loolu lépp la sëñ Tuubaa waxoon rek bañ ne ko ndaw lu jàngul mu ni bu màgget di mag mu xamadi rek mag mu xamadi moom li fekk jeexuñu coono bi du jeex wasalaamualeykum wa rahmatullah